ki nga xam ne moom mooy soq ànd ak mako bi ki nga xam ne moom mooy dégol suñu père dégol pour xam ñoom ñëpp daal bu ñu limee dinañ juum mais ëmb daal tey ñëw na gunge si ki nga xam ne mooy Sokh pour le 19 ëmm maa ngi lay ziar. waa jàmbaar ñu lay fay di nuyu Sénégal gi yëpp ginnaaw guñ sant yàlla jël si yonent bi gërëm suñuy waajur yu mag di ñaan Sénégal yàlla fi jàmm yàgg. Mhm. ñu ngi nuyu ñëpp nag ku nekk si turam santam. Mhm. di nuyu tamit aussi suñu papa yu fekk. Mhm. ku lim da ngay juum. Baba fi. Père Dogal fi. Père Pala a ngi fi. Père Burxaan mi fi. Mbaye Diallo. magu Pikine yëpp a ngi fi Père Abdou baaxum tamit mi ngi fi waaw vraiment xel dal na. xel dal na waaw. di sant tamit Pikine waa yëpp ak fan si ak soppe yi fu waay nekk rek. Mhm. ñu ngi yóbbante suñu nuyoo mhm. waaw. yow boo nekkee leader tey ci làmb nekk leader fii Pikine ah. nga ñëw gis maanaam engouement bu mel nii. Ah. Eumeu Sène lan lay yëg ci yaram. li ma njëkk a yëg mooy fi ma taxaw nii. Mhm. fii laa dooree fii nii suuf si miin naa bu baax. waaw boo ma seen nekkulee dara fii laa nekk di contact ñi ma la nii tey ñoo ma formé. waaw kon tey ñëw fii rek. Mhm. ziar suuf si déjà dafa neex. rawatina ma fekk fi sumay rak. ñi xam ne ñoo bokk fu ñuy juddoondoo yarandoo màggandoo fa. tey mu doon ñu doon ay relève yoo xam ne tey ñu am yaakaar la mhm. ñu ne suma ginnaaw ñëpp ay champion lañ jaga mhm. xam nga Modou Faye mhm. champion ay champion ñoo fi daje xam nga saa boggal ak ku lim da ngay jum waaw fii moom champion yi xam nga sama xel dal na quoi parce que waa non samay rakk daal ñu ngi nii waa di di nuyu tamit Boy Niang bu baax ak euh, Ama Baldé di la nuyu bu baax a baax di nuyu tamit Sil Baldé waaw gisuma ko mais xam naa ne dafa jàpp waaw di nuyu ñëpp a ku nekk turam ak santam waaw ngeen jëm si combat wala seen rakk soq jëm ci combat le 19 hmm. digganteem ak franc yaa ngi dégg seen communication. Hmm. ëmma nu mu jàngate combat bi dégg nga dem Modou déclaration bi mu ci def. Uh-huh. jàpp na sax yéen. 100 hmm. pour cent bi moom. Uh-huh. ci ñoom ngeen ko gis kon est-ce ko sax wàcce def ko 80 wala 50 pour cent. non 100 100 njëkkee. Ah. parce que mos def benn interview boo xoolee site internet yi ñu ko gis. ma ne waruñu yee gars yi ba pare di nelaw. yàgg naa ko wax ñun war yee gars yi ba pare di nelaw. Uh-huh. waaye tey. Mm-hmm. ay te tey loolu moo moo moo ñëw quoi. Mm-hmm. mais yàgg naa wax ni gars yi ñu leen yeew par di nelaw. Mm-hmm. voilà ñun amuñu lu ñuy li ñuy li ñuy li ñu rey ci keneen way demee noonu. combat la nag. Mm. mu doon combat boo xam ne combat bu ñu ñor la. combat bi. jël bu leer la ñu war a daan. te incha allah. dañuy am ndam ci kàttanu yàlla. jël bu leer ngeen war a daan est ce que mën ngeen a daan jël bu leer. leer nañu sax jàmbaar. Ah. <laughs> ah yàlla baax na yàggatul quoi jour si mooy xaw ma ñaata mooy mooy diis waaw yàggatul aa ah. ah. ah. sax maanaam tey boo ne maanaam boo ne da ngeen di daan wala am nga ci yaakaar Franc xam nga Franc yow xam naa ko bu baax xam Sokh bu baax qualité bëre bi boo ko xoolee ñoom ñaar Franc ne na 30 secondes. la ko hmm. may moom loolu lay répété boobu ba tey. Hmm. bu ñëwul ci 30 secondes yi moom 30 secondes la koy fekki maanaam une minute du ko génn ak moom. Eh. soq dàq bëre du neex a dégg nag mais soq dàq bëre. ah waaw. xam nga ko pour lu neex soq da wala lu neex supporter yi. ah waaw. soq dàq bëre Franc. non soq dàq foo teg loolu. ci lu leer laa ko teg jàmbaar. Ah. waxuma pour nii ah man du genre nit boobu. waa mais jour ji lay Franc di comprendre quoi lamb la ah ay espoir lañu yaakaar lamb lañu mais nag yàggatul. mais mbër mu toll ni Franc tournoi yi mu gagné daanoo ci lutte avec frappe ki dem mu mujj Pikine daan Tyson nga ne soxoo ko dàq bëre ëmm. lu leer kay laa wax jàmbaar. waaw combat bi Pikine war ko perte. dégg nga wax bi. man lay dañoo togg suñ togg ba mu ñor war ko génnee. waaw suñu produit. kon du lii du du maanaam mënu ma waxee façon wax yooyu quoi. Uh-huh. mais li mu lay mën a xamal mooy. waaw am na combat bu sérieux am na combat bu sérieux. waaw am na combat bu sérieux man maa la ko wax. Hmm, waaw boo gisee ñu Modou Lo ne si ginnaawam Papa Sow Gora Sock ak entraîneur yooyu ñoom Père Ndiouga Dia. Hmm. ñoom Balla Diouf ñëpp hmm. ëmb ko. nga ne eh, kee bëre. loolu du yéeme. Rock Énergie ñoo ko créé. ñan ñoo créé Rock. ah ba ah tamit Rock Énergie la jógee ñu ñoo créé ay champion ba ñu loolu am. lépp ñu ñoo si fii la jógee lépp fi jógee jàmbaar. yaa dégg waa lépp fii la jógee ñoom xaarim Gadiaga yaa dégg ay Pape Cissé numéro 2. ñam dolfu xanam su ma limeer damay juum quoi xam nga gars yi bu ñu bëggee làmb ñoom ba nekk champion tey. Pikine na tax ñoom suñ ginnaaw rek lañ mën a topp. waa Parcelles. waaye suñ ginnaaw rek lañ mën a ah. lu leer nag laa lay li may wax ñoom xam nañ ko. Ah. lamb la nag ñoom ñaay ay champion lañ. mais combat bii nii. waaw daf ñu ñor trop jàmbaar. te jour yi nañ xam ni komba bi ñor nañu. waaye. Ah. trop sax par rapport ak ki muy bëreel nga xam ne fukki combat la te kum ci mas a jàpp ku nekk du la daan dalee daan lu paasewul une minute ñëpp dalee na wër ndomba te nee na ñi muy bëreel soq moo si gën a niil. loolu waxu fans rek. waxi waaw non wax waxu franc. kon waxam la quoi tamit aussi bañu luñ ko waxam. parce que tamit moom moo xam lu mu sentir lu mu yëg. ba wax ko. mais ñun. ah jàmbaar combat pare nañ ko de. te saa yu Moussa pare combat bi mel mm. dañ koy daan jàll. Mm-hmm. waaw musuñu si musuñu si musuñu ko perte. Mm. waaw combat déclenchement yi mel ni combat déclenchement yi déclenchement yi toll nii. Mm. mu ngi fàttali Eumeu Sène li ma mën a fàtte su ma koy lim fii ci ay champion duñ ci jógee Pikine musuñu am. Cheikh Ndiaye lim na fi déclassement yu loolu laa lay expliqué combat bi mel ni Pikine musu ko am di ko caaxaane di ko perte. dañuy daan non mooy lu mu la expliqué jàmbaar. préparé nañ waajal nañ. préparé nañ waajal nañ. te suñu produit lañ togg ba mu pare. no ah. non non non. moom nee na parewul biir Pikine. parce que yaakaar naa ne seen 100 pour cent bii la teg bët dafa bëgg a daan ki nga xam mooy soq ba pare des fa. non kay sax la wax non du jàll du jàll du jàll parce que xam nañ suñu rakk xam nañ lu ñu liggéey xam nañ fulla xam nañ fulla bu nekk ci moom. Ah. xam nañ liggéey ne te ñeme na. Hmm. te koy lu mu dox rek. franc. Hmm. soo ko ko dàq bëre. te jours yi lañ koy xam. li bëri na ah waa yàggatul. doole ji nag doole waaw waaw. non yow tamit doole pour lan. bopp di xale liggéey. doole doole lañ koy liggéey rek wasa du foofu. Hmm. ah du foofu du foofu non non. peut être bu côté boobu ñu dañuy nelaw. bu dee dañuy nelaw bu baax. Ah. waaw combat ba amuñu ci benn côté bu ñuy tiit. Ah. musuma waxee nii musuma wax ci presse comme ni. man deret bi dafa maa dugg tey tey kay ah, su ma ah combat ñu ngi woote nag ci fair play. xam nga. ñëpp ñëw ci jàmm. Mm-hmm. waa Pikine nañ ko dalal xam nga ci jàmm sportivement wan ko ni ñun ay noobu lañ wan ko ñun ay sportif lañ mais ba ar bi génne suñu diggante waaw non combat bi ku ko tar di nga tardi combat bu doy waar yàlla nañ ko fekkee yàlla nañ ko fekkee incha allah dañu jëlee roi des arènes démb Modou Lo mu mm. fukki combat mm. Franc day daan soq fukki yoon ci lu yàggul dara démb ca Ikri loolu waxu mbër la rek Iba loolu waxu mbër la loolu moom waxu la rek parce que xamul xamul soq ba mun ko jugé noonu Modou waaw xamul soq boor ko mën a jugé noonu. Hmm. jàmbaar mbëri mbëri mbëri ndaw ñu ngi si ginnaaw ñoo mën mbëri ma ngi nekk kaw. mbër yu ndaw yi ci kaw. waaw ñoo mbër yu ñoo yu ne ci suuf yu mën mbër yu mag yi nekk ci kaw. ah wax laa wax de. amateur yu ko de baax na. waaw waaw wax bi fokk soq dafa bokk si ñooñu. Ah. waaw mais jour ba mën nañoo xaar nga ngemb ko comme nii nga def départ këram ginnaaw raay. andi ko maa koy yóbbu ba biir maa moom ba ci biir bi combat soo combat ah. combat soo ko ah. waaw yaa yaa koy yaa koy indi bi. ok. yaa koy ngemb andi ko. man maa koy ngemb indi ko man maa ñëw. lan moo lu gëj lu gëj am. lan moo tax nga bëgg a suma combat la. la moo tax nga ne sa combat la. lan lan bi moo ma jaral. parce que dañoo am xale bu am talent nekk champion. waaye waaye la. Mm. heure am jot pour mu wane boppam ci làmb ji. heure bi daa jot. dafa jot combat bi du combat bu muy perte amul droit bi. jaaduwul duñ ko nangu du suñu combat duñu luñu combat moo ñu gën a suñu combat ñoom yëpp daan ko rek moo ñu arrangé. côté mobilisation bi yaakaar naa ñu doog a yeewee. non kooku moom tiituñu si quoi. parce que Pikine gi yëpp leen di woo. waaw maa ngi jàkkaarloo fan si mm-hmm. maa ngi <laughs> jaay jaay ñi ngi ci woo Pikine yëpp nag. cent pour cent Pikine yëpp. xam nga suñu supporters yi. suñu am di jàmm yi. ku ci ni Abdou Karim Sall. ñu ngi koy woo. ñu ngi woo Thierno Ndom. ñu ngi woo Isaaxa. ñu ngi woo Ablaye Timbo xam nga maire de la ville. ñu ngi ciy woo autorité yëpp. Rama Maki tamit si ñu ngi ko ciy woo. bi soxla nañ doomu pikin yi ak autorité yi nekk Pikine. ñu jàppale. ñi ci combat bi. Mhm. parce que combat bi. Mhm. combat wu Pikine waa yëpp la. mais rawatina combat champion yi. ku ci mel ni man. ku ci mel ni Boy Niang. ku ci mel ni Ama Baldé. rawatina suñu père yi nekk suñu ginnaaw. tey boo xoole mobilisation bi xam ni combat bi daf ñu ñor. yàlla mi am ndam nag. ñu ngi koy ñaan yàlla ma ñu ndam. mais combat Sokh bi Sokh combat bi moomu ko suñu combat la. seen combat la suñu combat la ñun du combat Sokh. Sokh nag xam ni moom combat bi suñu combat la ñun. combat bi moo ñu jaral lu ne moo ñu gën a lu ne ci làmb. moo leen gën a lépp daal lépp ci làmb combat bi daan rek moo ñu diine yi kilifa aada yëpp. ak fépp ku borom nekk rek ñu ngi lay ñaan nga ñaanuñ suñu combat di ci woo nag sama mbokku joolaa yi waa Casamance. rawatina suñu mbokk séeréer yi. ñu ci woo ñëpp bay nuñ koy ñëpp bàyyiwuñu kenn. ni combat bi suñ combat di ci woo waa Bogal. di ci woo waa Maka Diané. combat bi suñu combat la. te jour ji incha allah dinañ bu ñu wàccee da ngay ne armée mu wàcc ci lamb ji. maa la wax lu baar ba bis tuddee sax laay sol. non maa ngi nuyu sama mbokk kodo yëpp commando <laughs> ngi leen di ziar. Ah. di leen nuyu ñoom ñëpp di nuyu ëmb tën yëpp. Ah. di ñaan Sénégal yàlla fi jàmm yàgg. waaw di nuyu tamit kon lu ma waxee deux cent pour cent bi suñu ginnaaw. Mhm. ku ci mel ni Jules mhm. de Gaulle. Mhm. Bourkhane. Abdou Bakhoum. Paala Diop. xam nga ak Baba Diallo waa mbay Diallo ñu ci woo ñëpp di ci nuyu Lanjang tamit aussi di ci nuyu daal vraiment gars yëpp di am contentement. merci. yàlla sa jàmm di nuyu presse bi nag ah. presse ñu ngi leen di nuyu. waa waaw parce que tamit aussi. gis seen liggéey ci làmb. gaa dañ leen war a. ayca waxal waxal. ah. waxtaan nañ. loolu code laa ci def mag moom la avant lii yëpp di di avant yëpp di am. non non Modou Lo borom baax la jàmm lañ ko yéene kon quoi tey ñu jàmm lañ dem yéene. c'est que ma parce que Modou Lo dafa wax ma génn wax damay wax juste pour gars yi xam sama tolluwaay ci làmb ji xam làmb ji fu ma toll man en personnel làmb ji fu ma toll dafa dafa diis si man te su ma yoroon ndam soq du entraîné. billahi wala naa ko toog su jot ma jox ko ko ok comprendre nga. waaw foofu laay waxee mais waxewu ma ko pour gaaruwaale wala waxewu ma pour que nii ko soit xam nga xam nga amuñu contrat aw ma bu ñu amee contrat sax aw ma lu ñuy wax ak moom ci yu demee noonu voilà dañuy wax rek ñu ngi ñu ngi wax tamit suñu père Papa Diop mu ñaanuñ ci combat bu baax père Pape Diop ñu koy taal loxo di ko sàkku ñaan suñu père Fallaye Balde ñu koy ñaanal suuf ooy ci kawam yàlla xar ko àjjana ok su ma juumee na ñu xam doomu aadama laa damay juum lu ci juum ñu xam yàlla suñu borom la ndam rek incha victoire ah Give one for Ansari.